alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaiin amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw loolu mbokki jullit yi Ramadan mi ngi jege si nuy ñaan sunu borom tabaaraka wa taala nu fekke ko te mu dimbalinu ban man koo woor man koo taxaw naa naafile ko ba mu jeex te lépp yàlla rekk tax ak sàkku tuyaaba mbokki jullit yi bokk na ci li gën ci lus di teeroo weeru tedd wii mooy nu fàttalente jaamu yàlla yi li tax nu di ko def jaamu yàlla yi buñ ko waxee ma nga tàmbalee ci wéetal sunu borom tabaraka wa taala ci ak jaamu ne moom rek lees di jaamu muy jariñ moom rek la dees di ñàkk jaamu ñàkk jaamu ga di lor laabal xol ba ba mu set wecc ci lépp loo xam ne bokkaale la wala lu koy jege wala mu nuru ko boole ko ak sellal jëf xeeti jaamu yàlla yépp loo ci def lu nekk yàlla rekk tax boole kook sellal jëmmi jaamu yàlla yi ngay def ba mu mucc ci wépp xeetu biddaa ak loo xam ne luñ sos la fexe ba looy jaamoo yàlla rekk day doon la yonente ba sallallahu alayhi wa yàlla moom ak i yooyu yépp mooy jaamu yàlla yi waaye yooyu yépp nag ak li muy bari bari lañ ca jublu rekk lenn la mooy texe am ajjana ak mucc ci sawara yàlla na ko yàlla may loolu la alxuraan di tudde ak texe akuk texee di ak texe akuk texee di moo tax sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne yow yawma yati laa takallamu nafsun illa bi idni bis bi nga xamee ne yow mal qiyaam ñëw na ba ñépp dekki taxaw fi seen kanam boroom kenn du sañ a wax ñëppay tiit jàq te seeni làmmiñ ba ba muy joxe ndigal si joxe ndigal ab yonentam lay jëkk jox ndigal mu wax borom bi mu ne fa minhum shaqiyun wa said ne bu bis boobaa ñaari couleur rekk a am shaqiyun mooy ku texee di said mooy ku texe mu leeral ko mu ne fa amma alladina shaqu ña nga xam ne dañoo texee yi fa fi naari lahum fiha zafirun wa shaqi wa shahiq nee na mooy ñi nga xam ne ña nga ca biir sawara di xéexat waliyasu billah xaalidina fiha ma damat alsamawat wal ardu illa ma shaa rabbuk inna rabbaka faalun lima yurid nee na ñooñu dañ fay sax ba fàww sunu borom tabaraka wa taala lu ko soob lay def mu ne wa amma alladina suidu fa fil jannati xaalidina fiha ña nga xam ne ñooy ñu texe ja ñu texe ña nee na ñooñu ña nga ca àjjana ñoom itam sax fa faw yàlla di leen jox ak may goo xam ne du dagg ataan gayra mooy may gu dul dagg mooy gu amul fu muy yem yàlla na yàlla may loola kon ñaari kuréel yooyu rek moo am ëllëg ku texe ak ku texee di suñ xamee loolu nag mbokk jullit yi jaadu na nu xam mus musle ci texee di lii tax nu mucc ci texe di ndax ku mucc ci texee di rek yow texe nga ba faw borom bi nee na fa man zuxzixa an innaari wa udxila aljannata faqad faas koo xam ne soril nañ la sawara tàbbal la jan ajjana kooku mooy ko texe maanaam ku texee ku texee diwul rek faw da ngay texe te ku texe mooy da dugg ajjana sax fa ba faw am nag juróom-benn yëf yoo xam ne duñ daje mukk akuk texee di nit du ko yóbbaale fa boroomam dem di fa fekk ak texee di kon juróom-benn yëf yooyu yi jullit bu nekk war naa góorlu ba yóbbuloo ko balaa ramadaan a ñëw nga teel koo tàmbali soo ko tàmbaliwul woon biir ramadaan nga gën ko cee yokk su ramadaan jàllee nga fas ko yéenee saxoo juróom benn mbir yooyu ma ci jëkk moo di ak texeet yi munta daje ak rafetal jëme ci ay waajur munta daje ak rafetal ci ay waajur bi maanaa kuy rafetal jëme ci waajuram ay waajuram loolu da koy musal ci ak texeet yi moo tax alquran wax na ko ci làmmiñu sayduna isa alayhi salaam nee na wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaaran shaqiya nee na man damay rafetal jëmale ci sama yaay loole moo tax yàlla defuma ma nekk ku texe di dëgg la sama yaay rekk la wax waxul sama baay ndax kenn ku nekk xam na ne isa alayhi salaam amul baay sunu borom tabaraka wa taala da ko bind ci coobareem mooy ne ko kun nekkal mu daal di nekk ci biirub sayidatuna mariama noonee la mbiram demee inna masala isa inda allahi ka masali aadam nam binde aadama noona la bind isa kon melokaan wu jëkk wi nga xam ne nit ki da ko war a melo moo di rafetal jëmi ci ay waajur nit ki nag mën na ne samay waajur dundatul jamono yi ñuy dund rafetal jëme ci ñoom firiwul ne luñ la digal nga def lu ñu la tere nga bàyyi ndax mën nañ laa digal lu dul noona su boobaa doo leen ca topp waaye rafetal jëme ci ñoom mooy wayefal ci seen kanam neexal deret ci seen kanam dee leen defal lu baax la la yàlla jox nga di leen ca jox di leen dénk lu baax di leen tere ab safaan suñ la waxee wax ji ñagas nga bañ leen caa topp loolu yi mooy rafetal jëme ci ñoom su fekkee ñu ngi dund suñ dëndatul te nekk ay jullit nga di leen ñaanal nga di leen ñaanal saa boo jullee rabbi axfir lii wa li walidayya su fekkee ne ñoom ñaar ñëpp faatu saa boo jullee nga ñaanal leen yàlla yërëm leen loolee ak rafetal gu ko gën a rëy amut ñaareel ba moo di texee di du daje ak ñaan jaam bi nga xam ne dafa saxoo di ñaan boroomam ak texe boroom bi tabaraka wa da ko koy may sunu borom nettali na ko ci kaddu yonentam ba ñuy wax zakariya alayhi salaam nee na walam bi duaika rabbi sag ñaan day yow sama boroom ñaan gi ma lay ñaan moo dox sama diggante ak texee di waxaat ko ci làmmiñu yonent yàlla ibrahim ba muy wax ak jaamukati xiram ya ak waajuram wa nga xam ne dafa toppoon xiram ya Ibrahima topp yàlla ba ñu waxee ba seen wax ja sës ci ñu fas yéene génne Ibrahima lam tontu baayam mooy wax a'tazilukum wa ma ta'budun wa ma tad'un maa ngi leen di won gannaaw di tàggoog yéen bàyyi leen ak lii ngeen di jaamu min dunillah li ngeen di jaamu bàyyi yàlla fële wa ad'u rabbi man nag maa ngi fas yéene di tàllal samay loxo sama boroom di ko ñaan asa alla akuna bi ndax wóor na ma ñaan gi may ñaan sama borom mooy dox sama diggante ak texee di kon ñaan mbokki jullit yi ngannaayu jullit la loo xam ne dana ko xëccal ay njariñ di ko dàqal ay lor waaye it kuy ñaan bul fàtte ñaan ak texe ak mucc ci texe gi ndax kat ñaan ci liy tax mucc ci ak texe di ci la bokk ñetteel ba mooy texe di munta daje ak alquran jaamu yàlla bi nga xam ne dafa saxoo di jàng alquran di jéem a xam la alquran di wax la muy wax mu di ko jéem a jëfe jaamub yàlla boobu ak texee di nekkul di ko xaar yàlla musal na ko ci loolu nag jaamub yàlla bu nekk tey jii amatul aw lay mën na caa def loo xam ne kem kàttanam la bu dee njàngum alxuraan jàngukaayi alxuraan yi tasaaroo nañ jàkka yu bare bare bari géewi alxuraan a nga fa yoo xam ne ku fa ñëw jàng fa jàkka ji ci la bokk ab jàngalekatam ngi fi boo xam ne képp ku soxlaa jàng alxuraan boo dikkee fekk ko fi mu di la jàngal alxuraan ci gën a kenn amatul lay ci ne xam xamle alxuraan di wax firikati alxuraan yaa ngi fi jàkka ji ba tey ci la bokk ajjuma ji nekk xam ngeen ne diggante timis ak gee am na boroom xam-xam bu fi toog di firi alxuraan ba keroog ñu julli gee kon jaamu yàlla bi na xam ne saxoo di jàng alxuraan di ko mokkal boole ko ak di xam la muy wax boole ko ak di ko jëfe loolu yi ku koy def loole xamal ne baraas la bu nar dox sa diggante ak texe di moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa wàcce wuñ ci yow alxuraan ngir nga texee di waaye dañ koo wàcce ci yow ngir nga texe kon alquran day dox diggante jullit bi ak texee di ñeenteelu mbir yooye moo di texee di munta ànd ak topp njub gi nga xam ne moo jóge ci alquran ak sunna alquran ak sunna li ci ne ci ay pas-pas li ci ne ci ay jaamu yàlla ñu santaane li ci ne ci ay jikko yu rafet yu yar nit ki nit ki mënta taqoog loola ba noppi di texee moo tax borom bi ne fa man ittabaa hudaaya ku topp sama njub gii nga xam ne mooy njubug alquran ak sunna fala yadillu du réer wala yashqa du texee di itam ku topp njubug alquran ak sunna doo réer doo texee di ndax ci yoonu taxe nga jaar te yoonu taxe ku ci jaar doo réer bu ñuy wax texee di goog yi nag borom bi tabaraka wa taala di dig jaam bi jub ne du ko gaar yëmul rek ci àllaaxira tàbbi àjjana waaye fii fi àdduna sax du fi texee di borom bi tabaraka wa taala dana ko teral fii ci àdduna teral ko ëllëg bu dajeeg boromam juróom benneelu melokaan bi moo di texee di juróomeel bi moo di texee di munta daje ak ki nga xam ne ab xolam dafa dëkke ragal yàlla saa bu ko fàttalikoo tiit tiitaange yi yóbbe ko mu delluwaat ci ndigali boroomam sori mooy boroomam tabaraka wa moo tax boroom bi ne sa yadakkaru man yaxsha ki nga xam ne xashya dafa ne ci ab xolam muy ragal boroomam di naf-nafi fu mu toll di xalaat mbirum yàlla di xalaat mbirum dee di xalaat la ci gannaaw dee di xalaat atte ba di xalaat ajjana di xalaat sawara kooku ab fàttalikukat lay doon lam koy jural wa yujannabiha al ashqa ki nga xam ne dafa texee di nag loolu du ko am ki texe di du am xol bu ragal boo xam ne day fàttaliku juróom-benneelu mbir ma moo di texe di munta daje ak taqwa taqwa nag buñ ko waxee mooy di def ndigal yi la nga ca man bàyyi nag tere yi léppam te soo jumee ba tàbbi ci tere nga gaaw a tuub bàyyi tere yi léppam waaye soo juumee ba tàbbi ci tere nga gaaw a tuub dellu ci sa borom moo tax ñëw na ci alquran fa anzartukum naaran maa ngi leen di xub ci sawara soo xam ne day bérëx laa yaslaaha illa al sawara woowee ka koy jaaroo kenn rekk la mooy ku texee alladi kaddaba wa tawalla mooy ki nga xam ne dafa weddi diine ji ba noppi won ko gannaaw mu ne nag wa sa yujannabuha al atqa ki nga xam ne nag dafa ragal boroomam di def ndigalam lam ca man bàyyi mboolem ay tereem nee na kooku mucc na ci texee di googu kon mbokki julli di juróom benn mbir ngoog yoo xam ne day tax jaam bi texe fii fi àdduna texe ëllëg ca àllaaxira yal na nu ko sunu borom tabaraka wa taala may allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal wa naudu bika an naqula zuura aw naxsha fujura aw nalbasa gurura allahuma inna naudu bika min qalbin la yaxsha wa min duaain la yusmaa ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا ولا إلى صديق يردينا وارزقنا رزقا حلالا يغنينا اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر wa acdala man xakam wa asdaqa man xaddas wa awfaa man wacad wa absara man raaqab wa asraca man xaasab wa arxama man caaqab wa axsana man xalaq wa axkama man sharac wa axaqa man cubid wa awlaa man duci wa abarra man ajaab najjinaa min annaar ومن علينا بمغفرة الليل والنهار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين